Free Money Mastercard disponible dans les agences et boutiques Free, mais aussi sur votre application MyFree. Avec sa Free Money Mastercard, des Free si ça calpe. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria. fourneau jambar canal, and programme NDF Fonds vert climat pour coopération allemande GIZ Royal Horizon Baobab fil free home téléphone 33 939 71 71 adresse route des hôtels saumon dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de da dooru TNT ba nag ñu ngi canal 33 Bravia Hôtel Ouagadougou vous aimerez déposer vos valises chez nous téléphone 00 226 25 32 97 97 Au Royal buuru Ah, les bises! Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibis.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Laïdjara remercie ses partenaires. Modougay, artiste peintre. M60. Toi et moi, boutique. Basifa Couture. mën a nekk fi mooy Cap Sud xoslu feeb ba tedd fii mooy Cap Sud Cap Sud Cap Sud Cap Sud Cap Sud Cap teewal si Cap teewal sama go si Cap bi dëkk neexee ko ñu tee ko jaay brek fii la lépp di Ne manquez surtout pas votre série Impact saison 2 tous les samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Maroudi TV. Et ce n'est pas tout. Arémer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Maroudi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 s TV et sur votre chaîne YouTube Maroudi TV. Ne manquez surtout pas votre série Emprise qui passe tous les jours de lundi au vendredi sur Sunuyef et tous les mercredis et dimanches sur Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. Ah. Merci nek ci embouteillage di bëri di jéem defar ak tout ça quoi mais xam il y a quoi en fait quoi. ah ni ni de. espace bi ni mu hein. mais lii ñu ñoko moma ah, ken waru ko laal ah. ñoo ko de. ah oui hein. en tout cas si tu continues dans cette lancée tu vas devenir forcément un ministre ou encore un député. oui <laughs> si absolument. en parlant de ça. Mm-hmm. yaa ngi ma doon wax waxu littoral bi. tu sais littoral bi c'est la jeunesse sénégalaise que ñoo ko quoi non faire waru ko laal kenn ko def avertir la population parce que waruñu di jéem a jaay littoral bi ba nit ñi di ba di air ak hmm? étudiants ils sont tout prêts ici imaginez le bu créativité campus des R.D.G et tout ça Nous parfois réviser. Hein? mais à l'intérieur de l'université c'est très beau. oui c'est beau moi j'aime bien les étudiants quoi mais empêche que si on des gens koy tard bi

400. mbay la su ma pertee rek mbaye roñ xaalis mbay lu ma teg fi mu roñ ko mbay la de. en tout cas daal xaalis daa war a yokk waaye warut a wàññeeku. xaalis bi nga xam ne ma ko war a versé monsieur le maire projet monsieur le maire bi laa ko lebe war koo versé mu dem roñ xaalis jàmbur bi nii. waaw léegi monsieur le maire moom amul problème. da nga koy jéem a gis rek moom amul benn problème. bu ma fontoo waaye nga naa ay demal jéem a gis monsieur le maire lu may gis monsieur le maire sama nawle yi toog ma ñëw naan leen manqué na ak matalu ma versement te ñëpp di versé comme man loolu xel la. te am na benn phénomène bu bu génn projet yokku taat la ak yokku ween dafa am xaalis yaay dafa dox de loolu boo ci duggee xaalis weex tàll ngay génnee wóor na. Zézé moo leen xam. yaay li ma la wax du dañ loolu am na xaalis projet bu mag la. ah moom sax dama koo nam waaw lu tax mu bàyyi la jékki-jékki rek bàyyi kër gi ñëwatu fi kan mooy am sa yaay di ko bàyyi. dama koo nam lool. Mm. nee ko nu fi ñëw nee ko nu fi ñëw waa bu dee wóor na wóor baax na <laughs> man lay amee na rek waaw man jom boo séenee ba raja kota kemaaga di ba nekk damaa xaw sedd xaw laa rey. waaw dootoo mun dama koy kii dama ko fil dama koy rey. waaw léegi. waaw amul la jaaxal. doxal saa waay ngeen dem ko si moom la mais moom léegi daa mel ni jamono yi commerçant yu mag yi dem Mali. di fa jëlee marchandise di ko dugal ci biir réew mi fi mu nekk hmm. mais yow marchandise amatuñu ko. dañoo tëj frontière bi. Hmm? te buñ ko tëjee rek Sénégal da koy sibir hmm. loolu dafa leer xaaral ma dox nii. Hmm. lii tax nag am njàng am solo. affaire bi affaire jàng xam nga affaire lan la affaire am culture générale la di gëstu ci réew mi di di xam di xam. dafa baax. maaleykum sama doom na nga def. maa ngi yow gëj naa laa gis di. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. ani sa yaay mbaa mi ngi ci jàmm. waaw mi ngi ci euh, bi may génne léegi balaa bàyyi. xanaa kon tey jàngu leen. ah déedéet. ah d' accord. cey Sama nee na moot. len naa la ko yëgal jamono yi ñu tol nii Sénégal ku ci ñuulul day da ngaa rafet yàq na way wa yàq nga way wa waykat wa dafa ne uh-huh. xale yi ku ci ñuulul danga ngaa te ñëpp rafet. dëgg la ñi ñoo taxoon mu koy wax génération bii. alaaji waxuma la dara waaye gis nga lii ma gis nii. ma teg si may bët nii nii nii jaxarat alaaji lii xajul si si si anglaise. Ah, ah. lii xaju si. dampi léegi spécial la dampi léegi dañuy jël karité gii ma lay wax mali gii. boole kook niim gi tàngal ndox ba mu tàng zibile leen ñoom ñaar bu la ca dampee rek nga nga way bay. Ma lox lu melni waye xam nga na xalé yi li lii lañ ko def da ngay am bi am bi lu leer nga wax man de gis na ko xamni ni fele la tollu pour mu xesanu day yone ak central ba nga ne mut mbir mom amna lu ci rax mom du naturel de yeen lu tax yéen leen am full ak est-ce que xam ngeen li moo tax nit ñi ken dotul fréquenté di ci ci grand place mais mais li ngeen di wax ni mais ñi ay xaritu ndey sama dom la ko lu ngeen leen wax jàppale ni ndey sama dom ngeen ko wax seen seen ngeen ko wax sen xull bu réy bi ak di ŋaang ak di talal lamine di mëlasiku ci xale ndaw yi mais kañ ngeen di am fulla mais li tax ñëpp daw grand place bi man dama xamul numa leen def parce que samay gaay ngeen mais sinon doot mu fi ñew way arrêté leen <laughs> waay yéen nan lam carte gi te ñibbi nan lam carte gi te ñibbi maman vraiment les produits sont super efficaces ñaar ñi ngay gis ni dañoo tuuti won ki amu won ween ki amu won taat tubaarkàlla day doom waaye doom foo jànge lii. en fait maman je suis étudiante en médecine dama waroon dem France defi sama master 2 mais comme j'avais un peu de temps ma xalaat est-ce que duma toog de faire ay produits pour jongoma xale yi quoi su koy jugal nga woon ko waay. baax na tubaarkàlla ah moom de ni muy def baax na. ñaar ñaar dawal sa ah. neexu la. ni muy def kay tubaarkàlla doom waaye nak nan ko waxtane dom li may dug yokk taat ak yokk ween dama baax mom moom tubaarkàlla. baax naa ci am dara. maintenant on a évolué on a des piqûres c'est encore mieux. piqûre yow nak yaa ngi doon wax li tax kon dom sama diwi yi jaratu ndax noy gisee piqûre di jël dim kon kay yaay lepp matna instant kay sa xel dal na wax la lepp ak produit ni mi démé kon kay ñun mën nañoo yegg. eh xaar leen xaar leen ka amna xaar yow da nga ñeme ka def leen ndànk nag nañ leen ko waxtaanee doom ndax ma maa ngi kii nag waaye wax dëgg yàlla ndax diw yi li ma daan li ma daan ni ma ni ma toogee ni ma diw yi ngeen bëgg maa dugal ci yokku taatu yokku ween yi waaye ndax wóor na. franchement c'est 100 pour cent sûr en plus maman bu ragal ici xam naa fi benn góor benn activiste lu woon bu tàng xol bu nekkoon sama école est-ce mu ngi fii ba tey. laay la de sama dooma. waaw laay la tudd. yow de li ñuy def du gëmu mu àgg doom. ah bu kay naane ndox du àgg na yem fii gasal bu mu xóot nga suul bu mu yëg de. yaay bu la dara metti bàyyi waxu laay bàyyi nañ loolu yow xoolal buzz bi ñun ñoo koy gérer TikTok Facebook Instagram Snapchat bu ñu dugalee view yëpp ñëw loolu ñun ñoo koy gérer yow kay jotal produit yi ngoon ngoon rek xale yu jigéen yëpp dinañ ñëw ran si jënd sold out di ko dégg. bu mu yëg de. yaay bàyyil waxu laay. waay waay maa kontaan sama doomi jigéen yaa kontaan xaam gunge leen laay lay la la damay am Facebook nag du ma leen may dara surtout groupe vente en ligne TikTok ak Snap dama koy toj doo sa kii kii du lay góorgóorlu dëgg moom lay góorgóorlu yow foofu nga toll gisoo ni maa téye dëkk bi yow kay gis naa la ngay kaas si télé yi rek ah oui c'est vrai naka mu

ñun on nous éduque d'une manière bi nga xamante ne jigéen bëgg rek on s'en mêle pas. oui big love hein. Ah. oui si mané ni di ici Laye jara. On oh, kontaan naa ci ah. oui nice oui puissance mais en a moyen que d'aller oui je comprends bien oui nice ah bëggee oui gis nga sama fan si quoi. vraiment c'est exceptionnel. oui mais oui mais oui, mais est-ce que yow moi il ay affaires buzz yooyu ak yooyu hein. Tu es drôle, moche. Non, les femmes à l'honneur. Hmm. C'est délicieux. C'est bon appétit. À vous aussi. La moi, définition l'homme est faible devant la femme. Ça, mon dark casse, <laughs> Mais oui, manak, on me amna na benn point bo xamné boy bang ko fay japp ndax lay fi mu ni nii fan kasul ah, lay da laay daa mandu fan yii te Sénégal léegi nekk fi activiste xoolal ut yoon la ay di la ut jaar mo yaw ma doo ñu dem France vacances touti jël airu France bi ak yooyu noonu déggumal de ñu dem France la wax visiter Tour Eiffel mais je fais quoi en France moi j'ai ici le monument de la Renaissance waaw duñ dem vacances non quelles vacances pourquoi pas nous ñu dem parc on fait la visite hein? pourquoi pas ne pas aller au Sin Saloum le matin on prend le pirogue on va visiter les mangroves hein? nous avons des sites touristiques hein? regarde le soleil regarde ce beau paysage hein? on le mérite quand même moi j'en ai, marre de ces charabia hein? ah mais non non ah, mais, je fais rien en France hein ah, que la France dégage quand même Votre série revient après la pub. Resto, so Ne manquez surtout pas votre série Impact saison 2 tous les samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Maroudi TV. Et ce n'est pas tout. Arémer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Maroudi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Ne manquez surtout pas votre série Emprise qui passe tous les jours du lundi au vendredi sur Sunuyef et tous les mercredis et dimanches sur Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. ma nit ñànk même pas une heure dix mille vues ngi toj tiktok la Wow, yow may noppil ngay ree er tiktok mo gëna yomb yomb Hmm, xam nga lan ngay def da ngay ñëw ñu def ben snap bu ndaw dugal ko instagram waaye snap ko loolu snap nday ngay wota allo waa Doudou Nday waa Wajang? ci loo ne waaye maa ngi nii rek maa ngi kuul ñoo ci liggéey bi waaw ñoo ngi nii de dañoo xalaat sa def kii nii page jéem a promouvoir produit. Ah? ah bu baax baax ñoo ngi ci nii. waaw. maa ngi coupé. waaw maa lay rappelé ok. yow waxuma loolu de sama Facebook ngay wàcc ku nekk ak may message. man de góor ma message ñu neen dafa intéressé wu ci produit yi. góor góor am. tamit kaala de. mufakam jàng jus bi jeex na de laay maa xiif mbaa kay serveur eh, loolu moo waa doo def nànk damaa téye téye ak ni nga jongomaa ni war nga xiif ku la xool xam ne dangaa animé yow nag sa bopp ak ni nga jongomaa loolu taw góor boo woo mu wuyu la taar alal la potentiel da koy exploité. koo woo ñëw wol wol ko ah, a xool sama benn jàpp sàcc fii rek. serveur. doo def nànk. ñetti mag ak benn bu ndox inshallah ndaw wa baxna bu soba yalla yónneel ma jox lako ko kay ndaw sa ndene yow li ma gis ci buntu keur gi melni marché bu tass li daal li mbaa jàmm la jar li may jaayee baax nag ah li nga jaay dafa baax tubaarkàlla ah d'accord mais ñi est-ce que ñom duñu sante yalla ya yàlla yalla te li leen yalla wërsegal ñu japp ci ñom xamne yalla mom yalla leen bëgge bindee ni bindee leen ko jara en tout cas diw yi baax na ndax mu ngi faj soxla yi li may jaay baax na de soxla yaa ngi faju baax kon baax na salaamaaleykum maaleykum salaam mais yokk doom noo def ça va ci loolu mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm kay man dañ maa boole woon ak yow dama bëggoon ñaari suppositoire yee doom suppo yi jeex na nag ah mais yokk bu mën a jeex na tamit xaw ma sama copain bi day ñëw photo yi ma ko doon yónnee dama doon yokk ay hanche sama ween dama si def éponge ba damaa sonn jëlal bi mais est-ce que efficace na

doo daagu. ay ca doom dawal. dana def effet bu gaam bu gaaw naa fi ñëwaat. waaw waaw. idi mel ni képp nii yow nag naa la xamal ñaar yow yaa ngi ci musiba mbamb bu ku rëy yaa ngi topp dëkk bi dëkk baa ngi war mbii jokk a biiju ngay jaay meer yokk waaw kon daal yow amatootul léegi nag yow yaay meer yokk meer yokk jaa ngi mel ni tulleeg man la nga foog ne yaa moom dëkk bi dafa la attention bu baax da ngay nekk nit nag mut la ñee yow rek maa baax na tayet war ngaa jéem a ah, bu fekkee baax na est que doo jéem a kii ah. doo ko jéem a utiliser. yow xamoo yokk ah déedéet yëguma ko de dugle woo de. dara yokk de eh, fa nga fa nga taxoon nga. yow yokkoo yow dara jugub. dara dugle woo de. <laughs> waxal la yow yaa njëkk a yokk ñëpp. Mais c'est... effusion bi dafa neex ah. gis nga. mais lu mu bëgg lañ ngay def quoi ci ngay dox c'est super quand même. mais yaa fi doon naan yaa fi def lu kenn deful. comme tu vois hein, ak lay jara affaire dañ koy teg ci raay bi quoi. dama bëgg nga dugg ci entrepreneuriat bi jàppale ndaw yi gis naa ni ñu bëri léegi dañu bëgg dugg ci cinéma bi di bëgg di nekk ay actrices ay acteurs jouer jeu bi ak yooyu noonu. mais non tout tout sauf ça hein parce que <laughs> c'est une passion mais il faut être dynamique dans le dans le but quoi xam li ngay def. oui bien hein. Ah, film film comme ça. naka mu. ça va. yaa ngi si jàmm. merci. waa eh, eh, eh. mais kii du sama copain. laay nag xoolal laay fan yii wàcc nga sa concept de jékki-jékki rek of ñu nii bàyyi ñu say say am di jàmm. doo bàyyi sama jëkkër ji gis nga temps mu ngi si yeneen. ah mi ngi ci leneen moo tax di woote fidèle Castro am. ngeen yokk nag fan yii livré temps nag gis naa ni sa copain yi dañ lay tooñ dama juróom nag sama xarit la à dafa efficace li nga soxla. Eh, c'est quoi ça li lan xaw a doy yi dama war a gën a defaruwaat. béel yi daal. yéen yéen produit la non. ay kii la rek ay produit la rek pour béel yi. e Grossfest, e Anche, e Bobarabá. Não. Anhas conheceu. Conheceu, se me conheceu, lhe me rir. Conheceu, donc eu. Eu dei dela bem, quoi. Eu, quando já uma mas ele me rir. Oh, Beridara Nekuchi, ninguém já está internet, bem. Me começa a dar Nekuchi. Aí eu caí, tá, aí eu comi, aí eu caí, assim, por ser ferbel. kon doo ko mën li may nekk ak yow yëpp c'est du c'est du artificiel c'est pas réel quand même. dama nga gën ma nopp rek yow. mais comment gën a nopp mais j'en ai rien pour gën ma nopp et tout ça ah. te est-ce que yow yaa ngi mesurer conséquences yi leen mën a jural mais xaaral il faut ma woo leen quoi di ñii. ay ay mën nañu ñëw pétition non non arrête ah s'il te plaît toi Anis non da ngay xeex sama combat quoi man laay jara yow yow yow mais yow bés ngay wax kon yëgoo li may xeex.

kon nag te yéen yéenay créer affaire yi quoi di di ay rek ay diw quoi hein? nangu ma sax wuyu mais non. Pa Ndey Pa Ndey yi ngay utiliser quoi. mais comme lan mais je suis pas de ce genre hein.

et puis am xam nit a xam mais ont ab dof la ki bop bi dara nekku ci ki na la ko meuna a kuy xalaat qui ont xam mais ki du xalaat nit moy xalaat yow ne ki nga yor bop bi baxul dof la takal sa fil ah. ci terminus. <laughs> Ah ouais, fils.

muy jaar suuf di jël ay affaire di ko livré bu gal yeeg affaire demee noonu. loolu wallaay ak lu ngeen mënut a jotee booy la violence doit être la dernière des solutions pour régler le problème. booy xoolal boy xoolal lii mooy violence hein. Boy li c'est un combat à mener hein. Boy du ma nangu kii di saltel fii quoi boy gars yi. kañ dugg gàlle nga naan ndox. booy dugguma gàlle waay booy Boy xam gàlle booy booy xool boy booy boy. booy gàlle booy. yokosul kon waay booy. ah, ah. tubaarkàlla ah, ginaar gi sax na de. merci Pa. bii de dalaa rëcc. Eh. bii da koo rëcc. yow yaa ngi jël lekk ginaar ne ginaar moom toujours mi ngi saf moom mais soo ko ji lekk ginaar boo ko laajee nee na day saf de yaa ku ko ko gëm. lu xew nee mais yaay nekk te man combat yi may doxal yëpp ah sama gars yi dañ ma bañ quoi juróom moo sama moo ngi dox di yàq samay tànk ma ah, man lañu bañ li may dox biir Sicap yëpp nekk te ñoo ngi sama ginnaaw nekk te bëgguñu ma. dalal bés bu ne nga jugee ci mbedd mi dugg ci kër gi di yuuxu chaque jour fokk nga dal adduna bi kenn waxul suba lay jeex bo lan moo xew la nu may dalee waaw lan moo ay pikiir ay lan ay yokku taat ay yokku ay ween ay produits yoo xam ne kenn xamul fu mu jugee d'ailleurs woote naa téléphone sax nangu ma wuyu avec ah, ay yokku ween comment on peut gérer la jeunesse mais la jeunesse c'est la

laay vraiment tay kontaan naa ci yow. oui monsieur l'inspecteur c'est vrai hein parce que tamit man dem su guddi dama jooy ba bërsët xam nga j'ai j'ai peur pour ma jeunesse parce que produit bi il faut ñu localiser ban conteneur moko ko Sénégal jeunesse bi mu ngi commencé yàqu quoi les jeunes filles ay hanche ay piqûres xam nga terme yi mënu ko sax wax devant vous comme ça mais. c'est grave quoi buñ ci jugul ni effectivement loolu moom dëgg la la police est là pour ça pour assurer votre sécurité kon côté Bob, na ci sa xel dal bu baax maanaam saa yu la faut venir voilà mm-hmm. donc ñun dinañ def lépp lu mën pour daal lay taxaw. je compte sur je sur vous quoi. bu baax parce que bëgguma saltel Sicap bi quoi. donc rassurez-vous rassurez-vous nous mm. sommes là pour ça. allez bonne journée. Hein. ok. Mm. daa taal nee na ko trois pots. ak nogay seek tey naa kaaju de. tey moom na bu baax sax tey moom dox bi moo ma jaay produit yu baax yi moom mii la. salaamaaleykum. yow man li may jaay lépp baax doom. mère Diarra vous êtes en état d'arrestation. yow lépp a baax. vous avez le droit à un avocat. booy booy lan Diarra eh, yow nga naan Diarra booy a xam nga expliqué ma la. bi day jaay produits illégaux. Diarra a baax eh, léegi boy man lenn rek laa ñaan man maay pa jara maay borom kër gi nañ toog fi waxtaan amul luñ fi waxtaanee dimbali ma dama la koo ñaan booy man commissariat bu ñu waxtaanee man sa papa la mën naa laa ñaan nga may ma ñaan nga may ma xew mais xew lu wut sama kër mais yow la kan yow ma eh man la laa jara l'activiste hmm? le digne fils de la SICAP doomu dëkk bi. nga xamuloo ma. da ngeen ñëw kër jàmm daf leen ne comme ça. defal naa wëri nga wax torop wax ma lay fan yii yëpp yow laa doon rëbb sa déferment rek laa yàkkamti sa yaay mi ngi nii day jaay produit illégaux mais non oh maman mia oh yaay non c'est pas vrai non li mun moo gëm na yow mais non yaay yëkkati tool si li oh. la lépp baax pa jaraa leen ñaan xoolal booy pa jaraa leen ñaan sax lu ci sa baay ma lan la ci sa baay ma. yow laaj yow li nga def en tant qu'activiste ngay raam laaj. Eh, eh man may rey waay. à ton avis yow war nga laaj lan la yow c'est à cause toi que ma mère est en prison. looy wax nii. yow nag tey lépp yow la quoi yow yaay cerveau bi di teg ay affaire ak yooyu affaire barbare yooyu yow foo jàngee li ngay def yow.

laay s'il vous plaît laay laay laay que à ne sa yaay des jaay affaire yokkutaat ak yokkuwee nan nga ñu si mën a wax. oui fi may site buzz. may na ma dugg s'il vous plaît laay ma ñu s'il vous plaît ma ñu ngay ne man la fi ba ngi di taw Capsi. Capsi.